Ah, mbokk yi ñuy seetaan seen télévision GMT TV ñu ngi leen di nuyu bu baax ci barab bu tedd bi ñu nekk muy jumaay Touba ci weeru mag bi wi ñu nekk muy mu ramadanil rek di ci jiital Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér ba naal yi mu naal ci yoon wi mu àggale ko ci lépp ci sagoom te ànd kook moom tey nag ñu ngi taxaw ak kilifa gu mag goo xam ne ku ko gis ci image yi da nga ko xàmmee rawatina ci barab bi ñu nekk muy maître Madické Niang Euh, maître nag di koo xam ne barab bi kenn dootu ko fi présenté ndax yaakaar naa ne ay ati at yu bari yoo xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi amal jëf ju rëy ji ci jumaa ji moom daf koo ànd ak ñoom du benn yoon du ñaari yoon waaye biir koor gi saa yu ne cëpp Tuuba ci barab bu tedd bii lay ñëw bokkandoog ñun jataay yi bokkandoog ñun mm, liggéey bi euh, euh, dogee fi ànd kook ñun waaye nag téewul day yëkkati alalam def ci loolu lépp nag sëñ Touba rek a tax mu koy def ndax ku nekk xam na diggam ak liggéeyu sëñ Touba mu amu ci sago kon maître euh, niñ ko defee woon daaw fekkee ko ren euh, di ñaan suñu borom ñu fekk ko ay at yu bare bare bare te suñu borom dindi ñu jafe-jafe yeeg bas mi nekk ci réew mi yëpp ba euh, dootuñu ko dégg ci àddina bi. maître xam naa kàddu gi sax du kii mooy lañu daan wax la ñuy wax rek ginnaaw bi ñu la santee rafetlu sa teewaay ak sa jëf dañ lay bàyyee kàddu gi rek nga wone sa. gis-gis ci liggéey bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ba mu ko tàmbalee ba léegi yàgg ñoom yéen a ko ànd. danoo jëkk wax ni alhamdulilahi rabbil alamin bi nu sunu borom mayee ñu ñëwaat ren sunu sunu bésu koor bu jëkk gi nu def fii si tuubaa ñu ñëw ndogu si fii. loolu sant nañ ci sunu borom bu baax dinaa ci dellu ci léegi waaye may leen ma ma ziyaar ziyaar bu gën a kawe ma ziyaar bi gën a kawe ma ziyaar ko sëñ te fii ma jege sëñ Tuubaa di jumaa ju sell ji maa ngi ñaan yàlla na fi yàgg te wér moom ak sama sëriñ sëñ Moustapha Massamba kullu mbàkke mbàkke ak bépp kilifa diine sëñ taxa dafa doon sagu yoonu murit doon sagu lislaam bi doon sagu der bu ñuul doon sagu senegaal kon li nu man ñépp mooy ñaanal ka yàgg fi te wér ndax loolu mooy njariñu lislaam bi mooy njariñu askanu yàlla na fi yàgg te wér li may ndogu at mu nekk ndogu lii moom a si dàqal ndax di ndogu dendandoog nii sëñ Touba si biir jumaam ju sell ji nga xam ne ñëpp xam ni jumaa ji mooy ndamu sëñ tubaa loolu wax dëgg yàlla lu rëy la yàlla na ma yàlla may kàttanu ay ati at ma ma bokk ak ñu koy bokk di ko ndogu waaye nag liñ si bëgg lépp gannaaw teeyoo bi mooy mu ànd ak ngërëmal sëñ Touba. ndax ñu ngërëmal sëñ tubaa képp la noo wut ni ko sëñ taxa waxe nee na ngërëmal sëñ tubaa moo ko gënal dugg moo ko gënal àjjana ku xamul nag dana la jaaxal waaye nag suñu nettali ay xisa yu bari daayen xam ni ngërëmal sëñ tubaa mooy tax nga nga nekk si firdawsi rasuulullaahi nga mën dëkkook yonent bi seetal am na ñoo xam ni dugg nañu àjjana te nu féetale leen sëñ Touba te amuñu ngërëmam kon kat ñooñ dañ leen féetale tur sëñ tubaa rek ba am na koo xam ni daan nañ wax ni si njaareem dafa daan soppeeku ba bés bi mu fi jógee mbokk yi ñëw ni ko sa waaja waaja ja rek waajan su tudd suñu borom yóbbu ko àjjana te ko kat dem na àjjana te amul ngërëmal sëñ tubaa waaye àjjana bi nu bëgg dëgg-dëgg mooy àjjana gu ànd ak ngërëmal sëñ Touba te mooy firdaw si rasulullahi kon sëñ Mountakha daf noo jàngal nan la noo doonee taalibe yàlla na fi yàgg te wér daayira Muxaddamaatul Xidma maa ngi leen sant di leen gërëm lii ñoo ma ko may mankat lu ma bëgg mooy lu mu bon bon lu mu bon bon mooy ma laxasu li ma sëñ tubaa jox ma fekk liggéeyu sëñ tubaa ma def ka si ndax kat du sama mën-mën du sama xalaat du sama bëri pexe lépp sëñ tubaa ma ko fàggul kon nag da ma woo si liggéey bu sell bi ku ñëw fii sa xol sedd kon yàlla nañ ko yàgg di teewe at yi nekk Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg te wér jërë ngeen jëf jërëjëf waaw waa kay mbokk yi kon yéen a dégg kaddu yu am solo yooyu nga xam ne maître Madické Niang yëkkati na ko te muy kaddu yoo xam ne ni ma ko waxee ci njëlbeen gi duñ ne guleet ndax bañ tàmbalee liggéey ba léegi mu ànd kook ñun ni mu ko waxee te dàkku ci lenn lu dul ngërëmul Serigne Touba kon ngërëmul Serigne Touba moom mu ciy dàkku mu ciy dàkk te ñun ñi koy def ñu di ko ci dàkk yàlla nañ ci taseeg moom te lépp mu nangul ñu ko yàggal ñu fi suñu kilifa gu baax gii Cheikh Mamadou Mountakha bañ ànd ak moom lu yàgg yàgg yàgg yàgg ba liggéey bi mën a sotti war mën a àgg foo xamante ni fu kawe njort maître ñu ngi lay sant bu baax a baax di la jërëjëf